العالمين خيار العالمين محمد الأمين يونان يونان العالم Darou Lalamin Mamadou Lamine bànneex waaye doon bés boo itam bu màgg boo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñu xoolee li fi daje lépp wax dëgg yàlla euh, xam ne bés na te wuyu nañ tamit waaye li ñuy mooy dañuy nuyu soxna Mariama Si mu Serigne ngi lay nuyu soxna si. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala maa ngi nuyu àdduna wér bi képp leen delloo ziar bu baax a baax. di lay def sa yéeguwaay macha allah. gannaaw bi ñu la nuyoo bu baax ndokkee lay tamit ci bés bu dëgg yàlla bëggoon luy wéccoo yow rek lenn ci ay kàddu rek euh, nga dénkaat ko askanu Sénégal waaye rawatina soppeek xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne saa su lay bàyyi mu mel ni tey bés bi dafa rëy ndax euh, sa diggante ak ki nga xamante sa sànni bi di Cheikh Moustapha Dieye sama borom may leen bant ngeen ko tuddee waat ko Mouhamed ci bés bi tey ban yëg-yëg nga am ak tey lan la tuddoo ci yow ci Seydina ndax Seydina Mohamed day suñu soppe day itam ki nga xamante mooy gën ci mbindeef ndax dama doon wax yàlla dama koy ñaan incha allah rabbi mu may ma Seydina Mohamed ma taaloo ko Cheikh Moustapha Dieye moom tamit dama doon ñaan yàlla mu nangul ma ko loolu taal ndax itam dañ ñaan ku ñeme dañ laa ji te bu ma ñemee tey ba ñeme toog di wax rek moom moo ma jox ndigal man ma tere woon dama ma def ndax mooy sama kilifa taal ndax bu ñu yàlla mayee njaboot ñu suñu taaw ñu euh, daal di koy tuddee sank sang yi mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay ñaan yàlla na doon mag yal ko yàlla tas si barke tóndoom def ko magum diine magum islam Euh, di nuyu nag àddina di nuyu mbokk Sénégal di nuyu nag pël koo xam ne teew nga ci bés bi. Mm-hmm. ndax mënuñu leen fay taal mm-hmm. ndax nee naa nga xew na ñu ngi si la yomb. Mm-hmm. ndax bés bi tombé naag euh, màggal Touba. ndax taal bés bi nee naa Touba dafa taal bésu xéewal la. bésu mbégte la te bésu ndam la itam ci ñun. ndaxte mu tombé bésu maam borom Touba. suñu lépp ci àddina euh, kon dañ koy sante yàlla ndax may nañu lu rëy daala li ma gën a yéem ci bés bi itam beneen ba mhm. mooy dañoo tuddee Seydina Mohamed daala gis nga xéewal bi fi ball yëpp macha allah mhm. euh, dañu ñaan yàlla nag mhm. euh, suñu doom ji yal na ko yàlla def mag yàlla def na papam lépp bu ko sonn ci bés bi mhm. yal na ko yàlla remplacé mhm. muy jéggalu nag ñi nga xam ne dañ may bëgg ak sopp ma mhm. ndax boo gisee ñu gëj maa gis ay taala nekkoon jigéen rek tayra nga xawoon sutante rek mais maa ngi naan nañu ñëw ci yeneen i liggéey ak yeneen i bagage ak yeneen i xéwal ak yeneen i tawfeex ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nee naa soxna Mariama sax léegi tuddee nañ tudd hmm. daal di koy tuddee yaayu nabi Moustapha soppe sëñ hmm. Babacar pour afatal la ndax taal yëg-yëg gi ñu am ci Seydina Mouhamed mënuñu koo lim hmm. te mënuñu koo nattable ndax naa suñu cofee ci Seydina Mouhamed jéggi na ba gën ko doon ñu ko nee naa am na commencement mais amul fu mu yem ndax sopp bi nga sopp bëgg gi ñu bëgg Seydina Mouhamed kon nag dañuy sant ci bàcc Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa di sant yàlla di julli ci sant sant mu doon lu am solo wax nga ko léegi waaye bés bi dafa am yu ci daje yoo xam ne dafa doy wax ndax euh, euh, euh, te kii sa sëriñ di sa borom kër ñu ñu xam ko ci Moustapha yow ngay Mariama te wax nañ ni Mariama mooy jenn jigéen bi nga xamante ni foo mën a dem kullu daanaka moom moom moo fa représenté lépp ngeen ëbbati ko amaat bant tuddewaat ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam wax nga ko léegi biñ ne tëf tuub yi ba ba ba ba ba sikkarkat yi tudd yàlla maam yàlla ji daal di wàccee xéwala bi musaawaan baawaan dëppoo yi tamit ak fukki fan ak juróom-ñaar ci safar kon bis bi dafa bëri ci daje te dégg naa ci sëñ Moustapha mu wax ni euh, suñu sang bu tedd ba Cheikh naa Cheikh Ahmed Tidiane Siré da koo fee ñu ne ko di nga am bant bu góor kon li daje ci bis bi yëpp yëpp yëpp yëpp amoon ngeen ci yëg-yëg wala xamoon nga ko wala nu demee loolu parce que yéen gannaaw gannaaw couple bi ñoom ñaar yéen ñaar ñëpp fi mu ne wax dëgg yàlla ay ay ay ngeen ay sëriñ ngeen daal wax dëgg sant yàlla. ndax Seydina Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Abul Abbas. gis naa ko ci mbaaxu yàlla man feeñu ma sëñ Moustapha sama sang la feeñu. bi may feeñu boobu ëmb ma dara dalu ma. ñu mm. koy feeñu. mu ne ma soxna am na wala ma dootuma la wax dama ñu am doom. Mm. yàlla suñu borom am na lu mu wax di koy wax ndax su koy wax rek ñoom day góob su koy wax itam xolam day fees taal mm-hmm. ndax wallaahi wal kitaabi parce mm-hmm. da koo génn tudd dafa gudd yee ma ne ma soxna Mariama mu ne maa ngi lay jéggal mm-hmm. ndax dama gis léegi Cheikh Ahmed ma ne ko lan nga si moom mu ne ma jox ma ay tegtal jox moo tax daal bu lépp ñu mën a toog wax ndax itam nee naa ñun léegi dañoo nekk nit ñoo xamante ne ay docteur lañu. Mhm. te docteur dafa war a am sutura. Mhm. moo tax mënuñoo toog di wax lépp. Mhm. taala ñu dëppiwaat xam nga sëy sëñ Touba. mooy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam kon pour gi la mu ëmb moo bari. mu tombé waat ak ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñaari safar. daal yombul de. déedéet donc dañuy sant yàlla. gën a féddali suñu kóllëre si suñu diggante ñun ak maam waa kër maam borom Touba. Mhm. ndax yombul daal daal. mu mel ni euh, ni nga ko waxee noonu yombul tey ñu gis fi ne daanaka euh, mbokk ñëpp a nga dëgmal uti ji Touba xaaj bi Sénégal moom xaaj bépp a nga Touba li ñu des a ngi ci yoon bi jëm Touba mais teew li li dëkk bi di wéet wéet wéet wéet wéet soxna Mariama dañu gis mbooloo moo xam ne ci subaak léegi fenn fu ne bawoon nañ fa ci biir Sénégal man loolu mooy li ma xaw a yéem lan ngeen liggéeyal lan ngeen jëfal doomu aadama yi ba tax tey jii xat-xat yi am ak fi jamono toll ñëpp bàyyi seen yitte xëy ñëw dëgmal si fii ban secret la. daal sant yàlla ndax nee naa ñu moomatuñ suñu bopp nit ñee ñu moom daal. Mhm. ndax seen naa dañoo war daw si soxla jaa doomi aadama yi. Mhm. Euh, war a daw itam si seen i bëgg-bëgg ak seen i yëg-yëg daal. Mhm. moo tax xëy na loolu lañu yàlla fayee. Mhm. ndax nee naa liggéey ambition laa dem ba am ko ci man soxna Mariam. yëg-yëg laa ci am amul laa mhm. ko xay ma nañ ko natt mën nañ kenn mënu ko xayma. ndax taal bi ñu dañoo sax bëgg bu yaakaar ñu itam. kon saay su rek. war nañoo euh, seen yaakaar bi ñu am ci ñun tax xëy na yàlla dogal nit ñi wuyu si ñu taal. ndax wax dëgg bu amee doo may naan alhamdulilah rabbil alamin sëñ Moustapha yi sant ci yàlla ne man soxna Mariama ne moom nañ tudd doom mm-hmm. même bu doon doonte ne benn tey ñëw sax nañ ko def sante yàlla mm-hmm. sante ko Seydina Mouhamed sante ko si Ahmed Tidiane ak maa borom Touba mm-hmm. li waral nag bésu safar te ala bés bi daal nee naa dafa ala daw da sëñ Mansour doon bi bés dafa ala daw dafa ala daw ne taal suñu dafa sedd ba xamatuñu lu ñuy wax suñu xol dafa ñun daal xamatuñu la ñuy wax sax yëg-yëg bu ñu am ak contentement bu ñu am daal ndax Seydina Mouhamed dama ko yàgg ñaan yàlla am na ñenn ñoo xam ne sama ay xarit dañ ma naan yal na la yàlla may nabi Moustapha su ma tudd ñëpp naa ma yaayu Mouhamed te hmm. mu doon lu solo xam naa bi may mujjee ci question yi rek ndax bàyyi la ndax gan xam naa ne gan yaa ngi taxaw di la xaar wax dëgg yàlla ñu lay teewu bëgg la ndokkali tamit bëri na macha allah rabbi mu mel ni wax nga ko léegi Cheikh Moustapha na ma di ko Cheikh naa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif feeñoo waaye bi may wax ma ma ne ma taala ne ma màggal bi fi mu toll ak yow fi nga bokk ci Touba ni nga ci bokkee ma ah, mu ne ma wàccee naa la lépp ma ne ko sëñ Moussa mu ne ah ma ne ko euh, boo ma ko wàccee wàccee wu ma ko sans foofu ndax dafa am lu ma séq yow ñu bokk la ñu bokk waaye ma am ma séq ak sa soxna muy soxna Mariama kon danaa ñëw assister ko ba mu jeex ma door a góotu takk samay bagage dem Touba waaye ban message tey soxna Mariama moom ngay lancé jigéen ñi nga xam te ñu ngi ci nekk seen ndax gis nañ ci star bu ne ci jamono yi seen sëy yi demul ay gàllankoor ay nangam nangam yow ngay sëriñ sa borom kër di sa sëriñ kon dama naan ñaari saar yoo xam ne saalu baati lañ kon ban message tey nga wax a naa a lancé ñi nga xamante ne mooy sa nawle mbokk jigéen ñi nga xam ne tey jii ñi ngi ci néegu sëy wala ñu ngi bëgg sëy bëggi borom kër ak yu mel noonu ak fi jamono toll tey parce que da am na loolu rek nag ba am ni nga am am naa loolu fa sant yàlla julli boo dëgg mhm. day naqari di def boo dëgg mhm. day bari bu muy bañ boo mhm. dëgg day am yërmaande te bari sutura ci jigéen ay jigéen day naaw te CREC bi dara lu nangu ak ñun taal. jigéen day nangu lool. Mm-hmm. day nooy ñepp itam taal. Mm-hmm. ndax nee naa tey jii sëy léegi mm-hmm. bari na sëy yi nga xam ne tas nañ taal. te sëy bu tas rek yàq na fan ndax bu yàlla dogalee nga am fa benn doom doom yi day dem fii di dem fii te jikko jay may am ëllëg. kenn xamul taal su ma damaa jigéen ñi dañu mën. jigéen ñi dañu mën ndax itam li nga wax. xëy na xam nga li mhm. ndax yàlla boole na maag sang boo xam ne neexul dëreel mhm. ku naqaree dëreel la ku naqaree nekkal itam mhm. dinaa naqaree nekkam boobu yëpp xëy na may liggéey bi may liggéey am naa ci yërmande boo xamante ne ne lu ma nit wax gëm naa ko te lu nekk nit naxee na ma ko ngir jëmi Seydina naa si a borom jigéen ñi nañu muñ nañu muñ taal te suturaal itam seen borom kër ndax sëy yi léegi na jeexee moo ñaaw taal nañ ko yóbbu tribunal nañ dem tës nañ dem fii nañ dem faa comme que dafa ne yàlla rawatina fu njaboot xas ba am dafa war a rafet ndax kenn ko nekk boo toppee sa mère maa nga topp sa xol bi nga def ba def loo xam ne ëllëg danga koy regretté mat san boo ko jigéen ñi taal nañu muñ ndax ku muñul fii ëllëg doo am yow ma xeexam fay bi yàlla te néew ndox yu bari na loolu taal te nit war na di soo dee mhm. ndax dee taal bu ñëw la mhm. te day ñëw ci biir ndekkeel day ñëw ci yoon day dab ndaw day dab mag kon nag loolu bu ñu ko xalaatee nañ def sëy jaamu yàlla nañ ko def jihaad jaayante suñu borom ndax tey ji li waral màggal ji jigéen moo waral màggal muy sama turandoo soxna Mariama ko sum mu daj ñëw ko suñu maam moo suñu maam maam ba am tey li mu am jigéen bi nekk war nga koo sàkku taal ndax nee naa wàllewu yaa ngi daw ci asamaan si mm-hmm. wàllewu yaa ngi dox ci kaw asamaan si nee naan waaye xam xamuñu ban jigéen lañu war a rob pour ëllëg ñu mën leen jur taala yaa ngi fi de mhm. kon jigéen ñi lañu mën dañu góorgóorlu jàppale seen jëkkër taala waaw nga bañ a déglu kenn mhm. tey da jëfee defal def na bàyyi bàyyi na mhm. ndax jigéen war nga xam ne neex sa jëkkër war nga xam ne sa jëkkër bañ war nga xam luñ bëgg nga di ciy dox ndax Sénégal bëgg ñu sëy bu dem bëgg ñu diggante bu neex mais lépp rek nañ ko def xeetu sant yàlla ñu si kàddu gu mujj gi dama la koy laaj lan ngay yóbbal ci sëñ Moustapha sa sànni. waaw bari ma yóbbal ci dara sëñ dama lay sant. <laughs> ndax temps bi na lool. ci hmm. ba tey sa téléphone noppal bi mu hmm. xam ne nga mel si euh, yoonu maam borom Touba. Hmm. mais kóolare ba dox si suñu gi ñu jàpp yëg gi nga am ci ñun yàlla tey door dogal maa sëñ Moustapha ñu door am sa bopp taal nga bàyyi sa yitte bàyyi lépp mais loolu guddi guddi ilaa Touba xam naa ni nga mel ci Touba xam naa li nga mel ci waa kër maam kon dama lay ñaanal sa site bii yal na ko àddina jéem lépp ci wut yal na ko yàlla ful mu dem ba doon rajo dem ba doon télévision ndax man yaay ki ne ma ñemee di wax nit ñi di ma dégg yàlla sa jëm ndax su ma amee bis te gërëmuma la du ma góor ndax man yaa ma a dégg micro ca rajo bu mu nekkoon ma wax yaa ma njëkk a ñeme ñemeloo ne ma nii ak nii ngay def yaa ma njëkk a tëse kon dama lay ñaanal lépp looy wut ak lépp loo bëgg si àddina yaa koo xam yal na ko yàlla defal loo sàmba yi ba di koy gërëm ndax moom tam sonnul tayyu à chaque fois mu ngi ne mel mu ngi xool te doon xale am ambition xam fi mu jëm fi mu jëm nag ak fi mu bëgg dem yàlla laa ko xam yal na ko fa yàlla teg yal na ko yal na yegg ba mel ni yoon yàlla dëgëral ko sëñ Moustapha nag du ma def lu sant ko taal du ma def lu gërëm lu ma bëgg bëgg na lu ma bañ bañ ne daf may sotle ba mën ko naan wéy góor defee nii. mu ma yaa man bëgg man bu samay njaboot. Mhm. danaan jël ay njaboot jàmbur fat leen jël ay doom jàmbur indi ma taala man sa borom kër li bëgg war nga ko bëgg la. ndax moom li mu xam moom mooy kaaleen rek kaaleen naan. te mhm. loolu la bëgg. Mhm. ñun tam ñu doon ay yaay faal. war a tar biir yi itam ndax la mu bëgg ñun tam bëgg nañ ko. ndax bu amee benn tiyaaba man bu amee fukki tiyaaba bëgg naa faa am benn. kon moom dama koy ñaanal yal na yàlla yokk xam-xamam yàlla dëgëral ko te suturaal te yàlla dund ba Seydina Mouhamed ak lii di ko yóbbu Màkka di jaral te ci bi yàlla na ko yàlla fulal yàlla na ko yàlla gën a dooleel yàlla gën ko sàng sutura daal kontaan naa loolu di nuyu koo xamante ne nga teewoon ci bi mm-hmm. ak suñu tijaan ñi nekk bitim réew di ñuy bàyyi xel mm-hmm. yéen seen alal yónnee ñu ko ngir bëgg gi ñu bëgg ak sant gi ñu sant kon nag mbir mi nañ ko sant nga yàlla di mm-hmm. doolee Mouhamed sallallahu alayhi wa sukuraan sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu borom subhanahu wa moom mi am sañ mën tey def yal na yàlla jàppandalal la wéral la maay gudd fan euh, yokk say xéwal jubala laak sa borom kër bàyyi leen ngeen ànd ba abadan ilaa yawmi diini abadan ba xam ne nii ñu doon tuddal tey jii màgg wax dëgg yàlla doon magum lislaam doon magum diine te loolu amuñu ci sikki sàkk amuñu ci xel ñaar ba mën leen a teral teral boo leen koo xamante rek amoon ngeen yéene xanaa jox leen di daje rek incha allah rabbi ci yeneen jotaay ndax gannaaw dafa dafa dafa dafa tënku woon waaye fi mu na incha allahu léegi tey di ngeen ko gis rek mu daal di ñëwaat ak yeneen feeñ incha allahu soxna Mariama Si mu sëñ Babacar jaajëf